guléet mhm. ku ñëw def ko fi Macky moo ko mujjee yéen ngeen ñëw def ko réforme ñu indi est-ce que dina dina dina tax euh, ñëpp mhm. yam égal à la à euh, la justice mhm. justice a def par parloo waaw effectivement loolu moom euh, man li ma koy njëkk a rafetlu mooy ñiy wax réforme ne réforme am na fa na fi amoon na fi mais lépp réforme bi réforme bi di moins dañ jëloon ay juge jox leen ak ñi nga xam ne ne am nañ mm, xam-xam ci loolu mais bii moom daf ko yaatal. Mhm. dafa ne sénégalais bi nga xam ne ne moom subir na juste injustice wala subir na loo xam ne justice dal na ci koom na ñëw wax xalaatam parce que dañ dem ba ibbi sax ay lien def ay plateforme ku am loola naqadi noo bëgg di si di joyante nga joyante maanaam na ñëpp indi seen xalaat. moo tax mhm. Bara Ndiaye dem. ku nekk dem ku nekk da ci am xalaat. Mhm. muy journaliste bi muy Sénégal lambda bi ñëpp am xalaat. wax ne bu doon sama sago de justice bi muy doxee nii ak nii ak nii mm. loolu sax faveur la mooy may na ñëpp seen kaddu déglu nañ ñëpp seen kaddu après ñu door a synthétiser seet li gën a yenu maana ak li war a nekk ak li mën a nekk loolu tamit muy dëgg mais du ay nit ñoo xam ne ne tey ñay juge dugguñ ci kaso bi mm. waaw ñi dugg ci kaso bi ñoo gën a xam li nekk ci biir kaso ba mm-hmm. voilà ah euh, nu mu tuddati mot ma ñuy kii ci biir kii bi. mënaat a xam la ca dégg kon jeex na ah kon nag ña nekk ci biir ñoo gën a xam la ñuy yelloo ak la ñuy dund. Mm-hmm. kon nag ñooñu it am nañ ci kàddu ba ne lii de dund nañ ko fa wala lii war nañ ko changer wala lii war nañ ko joyante ñoom it ñu mën a bàyyi xel ci ñi duggoon ak ñi duggul ak ñeneen ak ñeneen. Mm-hmm. loolu nag réforme boobu nag ñëpp ci am kàddu. Mm-hmm. moo tax ne buñ ko kiiyee ba ñëpp joxe seen kàddu.

lépp lu ci yoon wax dinañ ko def man gëm naa loolu. mais gëm nga justice ah. carrément. waaw dina xam nga dama ne. kañ nga ko tàmbalee waaw déedéet dama ne dégg loolu li ma wax. dama ne nit ñi dee defal ndànk de man suma ñàkk a gëm justice. Hmm. suma ñàkk gëm justice mais dafa am ñoo xam ne ne dañ leen doon def loo ñuy def. ñooñu dañ fi nekkatul. xaw ma ñu fi xaw ma nekkuñ fi xaw ma ñu ngi fi wala nekkuñu dama ne. am na ñoo xam ne dala leer na ne lañ doon teg Ousmane Sonko nga fekk ko nga nekk ko leer na ne bëri na loo xam ne injustice amoon na ci hmm. lañ doon bëgg mooy lu xañ Ousmane ko te defe naa loolu lañ ko xañ ba tey nekkul li mu doon mais loolu suñu borom it si la bokk loxol ndoxal leex euh, xaw ma ndogali suñu borom mais loxol tamit nitan ca léegi nag loolu amoon nag lañ bëgg lépp jeex mooy impunité dañ gis nga loolu man dama ci ànd ak ñoom cent pour cent mm-hmm. amut ku bokk passif

mu démissionné wala mu des fa. même même bu desee waaw am naa bëgg-bëgg. sama bëgg-bëgg mooy na fa des. mais na leen bàyyi ñu am liberté. Hmm. loolu laa gëm. na fa des parce que nag mu des fa tamit am na lu mu leen mën a jëmal mais nag bu mu fa des pour di leen wax defee leen nii wala waxee leen nii wala doxalee nii loolu laa d' accord. mais nag mu des fa bu ñu kiyee mu jooyanti bu ñu kiyee mais daal bu mu am parparloo. Hmm. bokk fa taxul nag nga. di leen wax loo wala di leen jëf loo wala di di leen def loo comme li fi amoon comme ministre de la justice bi fi jógee comme genre Ismaïla Madior Fall bi nga xam ne ne moom euh, moom bëri na lu yàqu ci réew mi bokk na ci. yàlla baax na loi lañ koy def bu ñu paree rek daañu koy appliquer ñu xool ana naka euh, la ñëpp rek daal di si gis seen bopp si li nga xamante ni moom mooy euh, réforme yi ñu indi si loi bi ma kontaan bu baax di la dalal di la wax à vendredi incha allah 10 heures 10 heures waaw merci beaucoup. on démarre à 10 heures. waaw incha allah 10 heures xam nga comme bi.